sëriñ Ahmadou Mbacke sëriñ Ahmadou Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóodi mi ngi feeñ jamono ci atum 1924 ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci quartier bi ñuy wax Touba Soura ci kër waa juróom gi nekkoon foofu nag di kër Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ci kër googu nag la doomu Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke bii feeñee jamono di sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóodi muy doomu soxna Xarimaan Diop ak Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke moom sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóodi nag am na ñu bokkal soxna Xarimaan Diop ak Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ñu man cee ràññee sëriñ Abdou Salam Mbacke ibnu soxna xarimaan Diop ibnu cheikh Mamadul Moustapha Mbacke Serigne Alioune Mbacke ibnu soxna xarimaan Diop ibnu cheikh Mamadul Moustapha Mbacke Serigne Seexul Xaddim Mbacke ibnu soxna xarimaan Diop ibnu cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ak moom Serigne Ahmadou Mbacke Tundóodi ibnu soxna xarimaan Diop ibnu cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ñett nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen moom doomu cheikh Mamadul Moustapha Mbacke bi di Serigne Ahmadou Mbacke Tundóodi bi matee dal alxuraanul karim waajuróom cheikh Mamadul Moustapha Mbacke moo ko dalal alxuraanul alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko jébbal sëriñ maxtaar bintaloo ci sura ginnaaw sëriñ maxtaar bintaloo nag sëriñ ahmadou mbàkke tundoo di dem na itam nag ci sëriñ ibrahima jeng ci dëkk bii nag di daaru raxmaan ginnaaw sëriñ ibrahima jeng ci dëkk bii nag di daaru raxmaan sëriñ ahmadou mbàkke tundoo di dem na nag ci sëriñ samsu njaay ci dëkk bu ñuy wax pari njaay ginnaaw sëriñ samsu njaay ci dëkk bu ñuy wax pari njaay moom sëriñ ahmadou mbàkke tundoo di daa tàmbalee jàng nag lii di xam-xam ci loxoy sëriñ maxtaar bintaloo itam nag la ko cheikh mamadul moustapha mbàkke indiwaat ngir mu dale fa nag lii di xam-xam ginnaaw sëriñ maxtaar bintaloo ci wàllu xam-xam dem na nag ci sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ngir itam nag mu tëralal ko lii di xam-xam ginnaaw Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke moom sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóori dem na nag ci sëriñ Mouhamadou Diop Dagana bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ginnaaw sëriñ Mouhamadou jóob Dagana la dem nag ci sëriñ Mouhamadou Dem ci njaareem ginnaaw sëriñ Mouhamadou Dem nag ci njaareem ci wàllu njàngum xam-xam moom sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóori la ko waajuram Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke jël mook sëriñ Moodu Roqaya moom sëriñ Moodu Maamun moom maam Cheikh Anta Mbàkke boole leen nag yóbbu nag ci réew mi nag di gànnaar gànnaar nag lañ jeexalee am njàng nag ci wàllu xam-xam mu nekk itam nag ku géeju nag ci wàllum njàng alxuraanul karim ak nag lii di xam-xam moom doomu mu Mamadul Moustapha Mbàkke bi ginnaaw bu mu ñibbisee nag ci am njàng delsiwaat itam nag ci réew mi nag di Sénégal ci loxoy waajuram Cheikh Mamadul Moustapha nag la nekk nekk itam nag bëkk néegu Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke wóolu ko daf ko itam nag ci ginnaawam mu nekk nag ko jege na lépp loo xam ne ni Moustapha Mbacke daana ko def nag ci wàllu yónneen sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóori nag moo nekk itam nag ci ginnaawam ci dëkk boobu itam nag di Taïf Mbacke mu topp itam nag ci ginnaaw waajuram Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sàmm ko itam nag ci sàmmin wu rafet a rafet a rafet gouverneur bu Ndar mas na seet si Cheikh dul Moustapha Mbacke ci dëkk boobu nag di Taïf bisub keroog ba mu fa ñëwee fekku fa nag kii di Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóori nag la fa fekk moo ko teeru dalal ko bi bi dee dem nag bindoon na ab lettre nag baal ko fa Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke te biir xamal cheikh mamadul moustapha mbàkke sa doom ji na nga fi bàyyi bi ñu ñëwee de fekku ñu la fi jort nañ ne de bu ñu la fi fekkoon lépp loo xam ne ni war nga ñu koo defal sa doom ji nag defal nañu ko ginnaaw bu cheikh mamadul moustapha mbàkke jàngee lettre boobu ba noppi mu ngi doon xamal sëriñ ahmadou mbàkke tundoo di soo demoon ndar de gouverneur bi itam dana la fonk dana la teg itam nag fu kawee kawee kawe lettre bii mu fi bàyyi mi ngi lay sant ba tey ci doxalin wu rafet woowu mu nekkoon ci ginnaaw cheikh mamadul moustapha mbàkke nekku bëkk néegam moom sëriñ ahmadou mbàkke tundoo di lii di raay bi bi ko cheikh Moustapha Mbacke taxawalee ci diggante Touba ak Njaaréem autorité coloniale yi nag doon nañ xamal Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke di ko wax ne nag saxaar gi am nga ci place boo xam ne nii yow rek yaa ciy toog te saa boo ci toogee itam nag doo fay ñun autorité coloniale yi nag ñoo la ko jagleel siège boobu nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag daana ci toog nag bu masaa di tukki mujjëm gi nag sëriñ Ahmadou Mbacke Tundoodi la bindoon ab lettre nag jox ko fépp foo xam a toog ginnaaw bi ñu demee nag ba sëriñ Ahmadou Mbacke amatul jot sëriñ Moustapha Diop Njekk lañ joxaatoon lettre ba ba nag ni sax soo demee ci njabootug sëriñ Moustapha Diop Njekk daa gis lettre boobu nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke bindoon sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóodi fépp foo xam ne nii war na koo tukki ci saxaar gi bu duggee saxaar gi du fay ndax siège boobu autorité coloniale yi Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke lañ ko jagleeloon ginnaaw ko sëriñ Ahmadou Mbacke yoree nag mujj gi nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sëriñ Moustapha Diop Njekk nag la ko féetale woon mu wéy nag nekk nag ci ron waajuram woowu ba waajuram génn àdduna ci atum 1945 mu jël léppam nag jébbal magam sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma magam sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma moo ko jëlee nag ci dëkk boobu nag di taayifa yóbbu ko itam nag ci dëkkub cheikh mamadul moustapha mbàkke bii ñu tuddee tundoodi jébbal ko ko ci atum 1949 tundoodi googu ba mu fay dem am na nag ñu ko sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma boolee loon mu ànd ak ñoom nag dem nag ci dëkk boobu nag di tundoodi ñu mën caa soxnaam si mu dëkkooloon ñu koy wax soxna assu soxna Astou Mbaye ñu ngi ko gën a xamee di soxna xumma ak ñetti taalibe yi njëkk a jaayanteeg moom itim bi muy dem nag ci dëkk boobu nag di tundoo di ci ndigalul magam sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma àndoon naag ñoom ñu mënoon caa ku ñuy wax sëriñ Daouda Ñang mënoon caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Bàcci Diop ak ku ñuy wax sëriñ Alioune Cissé ak moom sëriñ Ahmadou Mbacke di ba mu fa defee ab diir nag la fa magam sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñëw jël soxnaam si mu dëkkoo woon di maam soxna loo Diop indi ko nag ci dëkk boobu nag di tundoo di di xamal maam soxna loo Diop damaa bëgg nag nga des nag ci dëkk bi nag di Tundóodi di wéttali nag sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóodi ci dëkk bii nag ba mu gën a miin boole koog nag doomu maam soxna loo jóob ja di sëriñ Mbàkke soxna loo jox ko itam nag sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóodi ñu nekk nag ci dëkk boobu di wéttali sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóodi ba tey itam nag ci jëfi sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma bi mu yóbboo sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóodi ci dëkk boobu nag di Tundóodi dajale woon na nag waa Tundóodi muy doomu cheikh ya fa woon ak cheikh ya fa ne woon di leen xamal ne nag sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóodi mii nag maa ko fi yebal nag ngir mu nekk fi dama bëgg itam nag mu nekk fi nekk jë jëwriñ ji lépp loo xam ne nii nag war na wala ngeen soxla ko moo xam ci diine wala ay yitte bu leen ko fi jéggi mukk nag di ñëw ci man ginnaaw bu ko defee doomu seex yi ak seex yi itam ni la dajalee nag mbooleem nag waa tundoo tundoo di wow di leen xamal na nag li mu waxoon doomu seex yi ak seex yi loolu itam nag lay feddali ci ñoom ndax sëriñ Ahmadou Mbàkke tundoo di mii nag moo ko fi dël te lépp lu sëriñ Ahmadou Mbàkke tundoo di wax moom gaynde Fatma moo ko wax ginnaaw ci dëkk boobu nag i taalibe nag yu ko fa fekkaatoon ñu mënoon caa ràññe ku ñuy wax baay ahmadou jànqa baay moor faal baay saaliwu faal ak ku ñuy wax sëriñ baara siisee ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñoo xam ne itam nag fekkaat nañ ko nag ci dëkk boobu nag di tundoo sëriñ ahmadou mbàkke tundoo di moo fa def ci atum teen bi itam nag ñi ko bënnoon ñi ngi doon xamal sëriñ ahmadou mbàkke tundoo di ko wax ne diiru juróom fukki at ndox moom du ko manqué ci atum sëriñ ahmadou mbàkke tundoo di itam nag moo indi ay robinet dëkk boobu nag di tundoo di sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke moo xëcculoon ay robinet sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke ci dëkk boobu nag di Baxdaata ginnaaw bu sëriñ Abdou Khader Mbacke amee ndox nag ci dëkk boobu nag di Baxdaata doon na sàkku itim nag ci ña fa indi woon ndox ma ñu jàllale tiwo yi nag ci dëkk boobu nag di tundoo di tabax na fa liñ tudde poste de santé marché bu tundoo di itim nag moo ko fa def ay machine wala itim nag na ko jigéen ñi école franco arabe ba fa nekk itim nag sëriñ Ahmadou Mbacke tundoo di itim nag moo ko fa amal lii fexe ba jigéeni tundoodi itam nag di ko am tundoodi bu nekkee ab dëkk ginnaaw yàlla sëriñ ahmadu mbàkke tundoodi la sëriñ ahmadu mbàkke tundoodi nag wéy nekk nag ci dëkk boobu nag di tundoodi ci ndigalul magam sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ba tax na doomu cheikh mamadul basir mbàkke bii ñu tudde soxna aba mbàkke moom cheikh mamadul basir mbàkke sëriñ ahmadu mbàkke tundoodi itam nag dëkkoo woon na ko ak ku ñuy wax soxna faati sekk soxna faati sekk mii sax moom meññi doom ji sëriñ ahmadu mbàkke tundoodi amoon muy kam faye woon waajuram wa cheikh Mbàkke Tundóodi màggul mu wéy nag des nag Tundóodi di yar di jàng ak di jàngale jàng ak jàngale googu nag mu nekkee woon ci dëkk boobu nag di Tundóodi ak yar googu nag mu doon yar nag doomu aadama yi bépp soxla boo xam ne ni nit am na koy tim soo ko diisee mu fajal la ko tax na bind bindikat bi ñu tudde Baye Cheikh Fall téere bind nag ay way nag jagleel ko doomu Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke bi soo delloo nag ci way yi Baye Cheikh Fall téere defal sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóodi mag ñuy wax na tabuk sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóodi ñu teewlu ko sëriñ Ahmadou Tundóodi sa jataay bi yàlla na yàgg yàgg waaru baay wi nga dal te jig nga xaw ba yéen ca sa tooli baay toolub rasulullahi ak jëwriñ juréy dañu naa qadimul mustafa mooy tool sa baay dëkk baa ngi nii mbokk yaa ngi nii dongo yaa ngi nii yitte yaa ngi nii musullaa da niir lu sa waayi baay ndimbal ak demal ngay boole xak sigil ak sagal sa jotaay bi ahmadu neex na seex bambaak sa baay noppal nga sun xalifa rakkam yi ci sab jataay di waay yiw loo dégg jub defaral sa taxoon Cheikh Gaynde Fatma ma rëy ma mbir ne yaay boroom tindoo di aw law joojawaay axma toog tindoo di te manqué wul lu mu doon sëriñ axma yaaka baax man yaa ma neex barkeb sa baay axma yaay boroom xusnul maabi sa tooli baay ni nga moome tool yi nga moome mbooleem ñuñ sa baay te sa mag ju tedd ji na dung xilaafa ji alxaaji aliyu yal na yàgg ci bii jataay te nga dar ko say rakk dar la seen baay boole leen dar faw ngeen laafaale donga yi jëm ngeen wuuf sëriñ muhammad mu wuufaaley rakam kër gaa ngi nii daarul quduusi ji waaw walaay yal na yàlla boole salaatuhu wa salaamuhu jox mustapha ak waa këram sang yaa ngi waay jikko yooyu ñu bàyyi cheikh fall téere doon nettali nag ci way yooyu mu jagleel sëriñ ahmadou mbàkke tundóo di teewul nag sëriñ ahmadou mbàkke tundóo di fop ay magam nag def leen kilifa rawatina nag kii toog toogaayu cheikh mamadul mustapha mbàkke di sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma taalibe yi ko suñ borom booleel ñu gëm ko ànd ak moom nag ngir jëmmi sëriñ tubaa xaadim rasool ji saa su ne nag sëriñ ahmadou mbàkke tundoodi nag daana leen seeti ñu mën a ràññee nag ci dëkk yi nga xam ne nii sëriñ ahmadou mbàkke tundoodi daana fa dem ay ngan muy dëkk bu ñuy wax ñàgg dëkk bu ñuy wax dànq jaw dëkk bu ñuy wax turé faal dëkk bu ñuy wax daaru siisee nay daytim nag daana fa dem di seeti magam ja sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ak taalibe ya fa nekk ba ci dëkk bii ñu tudde kàddu bolloo ji su masaa dem nag ci tournée boobu nga xam ne nii daana ko amal nag di seeti taalibe yi ko sëriñ tuubaa seexul xaddim booleel ku ñuy wax sëriñ ousmane njaay nag la daa àndal saa su ne ak ku ñuy wax sëriñ baara siise bëgg googu mu bëggoon taaliba yi ba daa leen seeti saa su ne tax na nag taalibeem bii tuddoon sëriñ Cheikh Badiane sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóori nag defoon na ci moom ab dénkaane di ko wax ne nag soo bëggee defar sa àdduna jagal itam nag sa àllaaxira da ngay saxoo nag di muñ di moytu itam nag di lépp loo xam ne nii nag suñ borom santaane na ko nga def lépp loo xam ne nii nag maa ngi koy tere nag bu la ca kenn séen lii daal soo ko defee sa àdduna ak sa àllaaxira itam nag dana jag yii nag sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóori nag dénkoon sëriñ Cheikh Badiane nekkoon itam nag ab taalibeem kàddu yi nag képp koo xam ne itam nag ab jullit nga itam nag am nga ci wàll sëriñ Ahmadou Mbàkke tundoo di itam nag ba mu koy def Cheikh Badiane nag dong taxuloo nag mu di ko def ñu teewlu nag ndénkaane bi mu defoon nag ci ab taalibeem di sëriñ Cheikh Badiane asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yaa Cheikh Badiane man Ahmadou Mbàkke Daarul Qudus maa ngi lay dénk nga ragal yàlla te mooy di def li mu digle di bàyyi li mu tere maa ngi lay digal bul def dara lu àndul ak xam-xam maa ngi lay digal jàngal say soxna ak say doom ak ku ci yow maa ngi lay dénk santaane ak bakkan ak bànneex maa ngi lay dénk jamono ji jamonoy noppi la ak taqoo kër gi maa ngi lay dénk juróom yi mooy bët ak nopp ak làmmiñ ak xol ak biir képp ku bëgg mucc àdduna dana xañ boppam dara ci alaxira képp ku bëgg teraangay alaxira it dana xañ boppam dara ci àdduna wasalaam ndénkaan yooyu itam mu daa def ci ay taalibeem sàmm googu mu daa sàmm ahlu murit gi tax na nag mbooleem nag ñu mu séqal ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul tudde ko doom moo xam ay ba ci ay rakam wala baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul waajuram cheikh mourtada mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasuul tudde na doomam jooju di sëriñ ahmadu mbàkke tundoo di doom waajuram sëriñ abdu xabir mbàkke moom cheikh masamba mbàkke tudde na doomam jooju di sëriñ ahmadu mbàkke tundoo di doom waajuram sëriñ abdu baaxe mbàkke bu cheikh masamba mbàkke tudde na doomam jooju di sëriñ ahmadu mbàkke tundoo di doom waajuram sëriñ mustapha mbàkke moom sëriñ masamba mbàkke tudde na doomam jooju di sëriñ ahmadu mbàkke tundoo di doom sëriñ mustapha mbàkke absa bu sëriñ moodu awa balla mbàkke tudde na sëriñ ahmadu tundoo di mbàkke doom sëriñ abdul Aziz Baara moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke moom Serigne Touba Khadim Rasoul tudde na Serigne Ahmadou Mbacke tundoo di doom Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke moom Khadim Rasoul tudde na Serigne Ahmadou Mbacke tundoo di doom Serigne Modou Moustapha Mbacke Falilu moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke tudde na Serigne Ahmadou Mbacke tundoo di doom Serigne Modou Abdou Khadir Mbacke moom Serigne Abdou Khadir Mbacke moom Cheikhul Khadim tudde na Serigne Ahmadou Mbacke tundoo di doom Serigne Baara Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moom Serigne Touba Khadim Rasoul tudde na Serigne Ahmadou Mbacke tundoo di doom sëriñ Amar Fall Mbacke moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke moom Xaadim Rasuul tudd na sëriñ Ahmadou Mbacke Tundoo di doom sëriñ Abdul Xadim Mbacke moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke moom Xaadim Rasuul tudd na sëriñ Ahmadou Mbacke Tundoo di doom sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdul Aziz Baara Mbacke tudd na sëriñ Ahmadou Mbacke Tundoo di doom sëriñ Madiba Silla bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul tudd na sëriñ Ahmadou Mbacke Tundoo di doom sëriñ Cheikh Fall Bayib Góor moom sëriñ Moustapha Fall moom Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridina tudd na sëriñ Ahmadou Mbacke Tundoo Tundoo di doom sëriñ Moustapha Guèye Yarwaay tudde na sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundoo di doom sëriñ Cheikh Faati Mbàkke Badiane tudde na sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundoo di doom Baye sëriñ Jaw moom sëriñ Mansour Jaw bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul tudde na sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundoo di doom sëriñ Alioune Ndiaye bu Gédé tudde na sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundoo di doom sëriñ Cheikh Kan Màggat Saar du doom sëriñ Mor Kumba Kan bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul tudde na sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundoo di doom sëriñ Cheikh Mariamu Ndiaye tudde na sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundoo boroom ginnaaw turandoo yu takk yooyu mu am na ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul waa daarul xudóosa di ñim bokkal cheikh mamadul moustapha mbàkke amul kenn nag ku ci tuddewul sëriñ ahmadu mbàkke tundoo di doom ndax ñépp kat rakk ak mag nag lañ ko jàppe woon ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu tudde sëriñ ahmadu mbàkke tundoo di doom xam naa ko bëgg lim kuñ tudde sëriñ ahmadu mbàkke tundoo di daa juum ci gàttal daal képp ku mu bokkaloon ëttub ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul moo xam ngay maamam moo xam ngay waajuram soo ko tuddewul doom itam amoon nga cofeel Mouhamadoul Moustapha Mbacke bi magam sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag wéy nag rakoo rakam ji defoon na ko itim nag mu yor kàddug daarul xuddoos lépp loo xam ne nii njabootug Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacke ñi ngi koy wax sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóodi ci moom la daa jaar ba nim fi bàyyi ko ci atum nag moo yore loolu suuf si nekk nag ci penku Touba muy li ko dale sura ba ci Tundóodi suuf soos itim nag moo ko jébbal nag lenn itim nag ci njabootu xaadim mbàkke moom cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ ahmadou muxtaar mbàkke moom cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ cheikh bombaali moom sëriñ mbàkke madina sëriñ ibrahima mbàkke absatu moom cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ moodu abdou xaadir mbàkke moom sëriñ abdou xaadir mbàkke sëriñ moustapha mbàkke abdou xaadir mbàkke moom sëriñ abdou xaadir mbàkke sëriñ moodu njaay asan bu daaru njaay sëriñ cheikh mariamu njaay bu daaru njaay ak sëriñ cheikh faati mbàkke bajaan ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñoo xam ne nii nag sëriñ ahmadou mbàkke tundóo di itam nag joxoon na leen ay pàkk nag ci diggante boobu lu takku itam nag nag ci ay dongaam ginnaaw buñ nekkee ci daaraam ji itim joxoon na leen ay pàkk itim nag ci diggante boobu lenn itim nag ci mbokk taalibe yi yaakaaroon sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñu ci takkoo takku itim nag ci diggante boobu buñ fi amee kër ginnaaw yàlla sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóodi la dem na màkkatal mukarama moom sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóodi ci atum ci ndigalul magam sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma moo ko booleeg ataawam di sëriñ Mbàkke Soxna Lo ngir mu gunge nag waajuram woowu nag di sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóodi mukarrama mu nekk nag kuy dimbalee nekkit nag ku bëgg cheikh mamadul moustapha mbàkke toppitim nag ci ginnaaw ay magam moo xam sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma sëriñ ba ci magam sëriñ aliyun mbàkke mi nga xam ne nii nag ci xilaafaam nag la génnee àdduna kenn ku ne nag ci ñoom bi nga toogee toogaayu cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ tundoodi nekkoon na nag ci sa ginnaaw topp googu nag mu toppoon ci ginnaaw ay magam moom sëriñ ahmadou mbàkke tundoodi bi sëriñ abdul ahad mbàkke toogee xalifa général des mourides waa daarul xudóos nag dajale woon nañ ay addiya la mu tolloon ci soixante-dix millions cinq cent muy juróom-ñaar fukki millions ak juróomi téeméeri junni addiya yooyu nag bi ko daarul xuddoos nag di it sëriñ Touba Cheikh Abdou sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóori nag moo ko yóbbu woon ginnaaw bu sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke nag jotee addiya ya bindaatoon na lettre nag waa daarul xuddoos di leen sant nag ci addiya yooyu nga xam ne nii nag jébbal nañ ko ko lettre ba nag ma ko jaarale nag ci turu sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóori soo delloo nag ba sëriñ Touba Cheikh Abdou addiya yi ñu joxoon sëriñ ahmadou mbàkke tundoodi moom jot na ca ñu teelu nag lettre bi sëriñ tubaa si abdoulahad mbàkke bindaatoon waa daarul xudoosa di leen sant nag ci ay addiya nag yuñ ko jébbaloon te sëriñ ahmadou mbàkke tundoodi nag yóbbu woon ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen waa kër cheikh mouhamadul moustapha maa ngi leen di nuyu lu bari te di leen sant bu baax te di leen gërëm ci seen taxawaay bu rafet te di leen xamal ne Ahmadou Mbacke Moustapha ak ñi mu àndal andi nañ fi seenu liggéey mu toll ci juróom ñaar fukki million ak téeméeri junni may ñaan ngeen yàgg ko fee andi yàgg nu fee fekk te sëriñ bi nangu ko te nu xam jàmm jànd ak wér ak xéewal sunu aajo yëpp faju tey ak ëllëg ci barkeb sëriñ bi tax ngeen di ko jëf jërë ngeen jëf Abdoul Ahad Mbacke Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw addiye yooyu nag sëriñ Ahmadou Mbacke Tundoo ci sëriñ tubaa seex abdul ahad mbàkke sëriñ ahmadu mbàkke tundóori nag wéy itam nag topp nag ci ginnaaw ay magam nekk itam nag ku yéeme moom doomu cheikh mamadul moustapha mbàkke bi ba tax na nag sëriñ ahmadu mbàkke tundóori bi muy dem gànnaar nag di jàngi waajuram cheikh mamadul moustapha mbàkke mook sëriñ moodu roqaya moom sëriñ moodu maamun mbàkke nag lañ boole woon yóbbu keroog nag bi ñuy dem gànnaar cheikh mamadul moustapha mbàkke nag moo leen gunge nag ba ci dëkk bii nag di ndar kër ma suran suran nag la ñu daloon doon nañ seetaan nag ay militaire nag yuy def entraînement leen di leen laaj nag lan ngeen di def fii ñu di ko xamal ne daal militaire yii nag di def entraînement nag la ñuy seetaan Cheikh Amadou Sow nag mi ngi leen doon xamal ne militaire yi de guerre la ñuy waaj a waaye léeru ci kenn nag ba xam da nga del seem ndéeta yéen ñaar ñi de maa ngi leen di xamal ne saa bu ngeen jàngee ba ñëw militaire yi nag dañu leen mbaay yàlla lii nag sëriñ Ahmadou Mbacke di nag daana ko netti li ne bi ñuy dem gànnaar te nekkoon ndar Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag wax na leen lii moo sëriñ Modou Rokhaya ak yeneen ak yeneen ak yeneen nag yoo xam ne ni doomu mu Mamadou Moustapha Mbacke bi nag def na ko mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di tundoo di di yar di jàng ak di jàngale taxawal na ay daaray daaray daara ci nekki nam ci biir daara yi nag ñu mën cee ràññee daara jum taxawaloon ci dëkk bu ñuy wax jëm wélli ci saalum taxawaloon na daara itam nag ci dëkk bu ñuy wax polle ndiisoo itam nag taxawaloon na fa daara ak yeneen nag yareen wi bërëm nag yu mu amoon daara rawatina nag dëkk bii nga xam ne nii magam suñu Cheikh Mbacke Gaynde ma nag moo ko fa dël di tundoo di ay kër itam nag amoon na ko nag ci biir réew mi ñu mën cee ràññee kër gi mu amoon ci dëkk bu sell bi nag di Touba kër gi mu amoon tundoo di ak kër gi mu amoon nag ci ndakaaru ci jàng ak jàngale ak liggéey jox ay magam ak toppitim nag ci ginnaaw ay magam ci la sax nag ba nim génnee àdduna ci atum 1997 ma cheikh mamadul moustapha mbàkke bi ak soxna xarimaan jóob bi di sëriñ ahmadu mbàkke tundoodi mi ngi génn àdduna bisub altene ñaar fukki fan ak benn ci diggu tabaski ci atum 1417 ci gàddaay gi altene ñaar fukki fan ak benn ci diggu tabaski ci atum 1417 ci gàddaay gi dëppoo muy lundi 31 mars 1997 lundi 31 mars 1997 ci dëkk bi nag di ndakaaru ci hôpital principal ci feebar nag bu ko tëraloon ginnaaw bu mu génnee àdduna ci ndakaaru ñu yëgal ko magam ja sëriñ Alioune Mbàkke mi toogoon toogaayu Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke sëriñ Murtada Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moo woolu doomam ja nag sëriñ Muntaxa Mbàkke moom Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke di ko wax nag mu taxawu sëriñ Ahmadu Mbàkke Tundóodi sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci booy dugg nag ci armeeri Tuubaa yi ci diggante fi ñuy jullee néew yi ak morgue bi foofu nag lañu denc sëriñ Ahmadou Mbacke Tundoodi ku ñuy wax soxna Guèye ginnaaw bu fi sëriñ Ahmadou Mbacke Tundoodi nag bàyyi ko def na nag am marché bu yaatoo yaatu nag ci doomu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke bi ci ñàkk guñ ko ñàkk ca at moomu di atum 1997 ñu lu marché bi ko soxna Guèye defal moom sëriñ Ahmadou Mbacke Tundoodi bismillahi ali rahmani al maliki rahimi dil asmani ma ñëw di bindaat mbind mi ci sëñ bi te moo di Cheikh Ahmadou mi di sang bi demam gi rek laay metitlu waaye pexe amul nu far wakiilu ne bu dul woon loolu dañuy def ne Omar na mu defoon keroog ba mu amee naqar ba ñu ko ne ki gën bindee fi làkku na daa daal di jël jaasi ja rek ngir jaaxle na daal di ne ku ma jëkk a wax ji wax tey ma dog sa bopp ak sa baat nga dee tey Abubakar mu mag ma jiite yoon wa moo ko déggal la yàlla wax ca saar wa man kaana yaabudul ilaha al ahada fa huwa xayun laa yamuutu abada man kaana yaabudu muhammadan nag fa huwa maatal yow ma seetal yow nag taxawal ca mag ñu baax ña bis ba ñu ñàkkee Seexi Bàmba maam ja ñàkk solo àdduna gi day yokk gàtt gi it di yokk bon gi yokk ndeek xayru xalqillaahi moo ko won ginnaaw Cheikh Ahmadul Xadimi ñëw won ko ginnaaw seex Moussa Fall Mbàkke yi des ko noonu seex Gaynde Fatma Mbàkke des ko noonu nu war a xam ne lii ci des jarul dara ndegam la jàll baaxul woon bañ naa dara te xam ne fii ay tool la nan bay rek kon ba wàcc jot buñ àggalul yi wàcc kon te bañ di rek añ ba jot Cheikh nee na woon ku jëm ab dëkk da ngay taxaw ca yoon wa jëm sa dëkk bu la fa waruwaay wa dem fekkee nga dugg daa àgg saa bu àggee Cheikh Ahmadul Mbàkke yi sëñ ba wàcc na bay na sa sam ba mu set te sell na jëllale naa ngëmam ga woon ca boppam waaye da koo defoon ci waa kër boppam taalibe bu mu am rek ihsaan ngay jëfe boo ko jegee boo ko soree moom ngay jëfe daa dëddu àdduna ba xëy wuy ji boroom lu mas di def day xam ne yàlla mooy boroom Cheikh Ahmadul Mbàkke yi taalibe taalibeem yi bàyyi na leen ci jaaxle cay dongaam yi mag ña da leen a jàppe woon ne boppam ndaw ña mu def leen ñu njabootug boppam soxla su waay amoon mu def ko soxlaam taxawu leen ci gépp fànn lu mu am moo tax bisub demam ga ñépp a jaaxle te ñàkk Cheikh Ahmadou Jar nag jaaxle bis ba mu demee koo gis mu mel ne ab dog du xam lu muy wax mbaate sax lu muy def daaray tindoo dee polle ak ju ndiisoo donga yi yépp kenn talul kuy diisoo daarul xuddus mel ne keroog bañ ñàkkee magam ju maamam ja xaadim rasul ca biir ji naa nillaahi ak ngëm ji kem nim niroog ñoom bis ci seen làqu yiin ak ni mu doon royee ci seenu nekkin ndax ñoo fi bokk jóge bisu altene ñoom ñett ñii cëy yi la yetti altene altene li rasul wa xaadimi rasul wa cheikhi ahmad sippi xaadimi rasul yal na nu yàlla taas ci seeni barke ak képp kuy mbindeef mu ànd ak barke te yàlla dolli noo defal imaana ban mën a muñ metit wi ak ihsaana balun fi def tey ci ginnaawam mu rafet ba bun demee ëllëg fa kanam kanamam rafet inna lillahi rabbil alamina wa innana ilayhi rajiuna nu daal di tàggu fi mbokki jullit yi te xam ne tiis na lool ci kaw murit yi waaye nu dellu rek ci yàlla buur bi te xam ne rek lu man di am mooy buur bi wa solli ya rabbi ala rasuli sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi warda anil wa taabiihi ubadil xadimi ginnaaw marsiya boobu ko soxna Géey defal turandoom wi ñu tudde Ahmadou Jigal moom itam nag def na marsiya bu yaatoo yaatoo yaatu ci ginnaaw turandoom Ahmadou Mbacke Tundoodi soo delloo nag ci marsiya bi ko sëriñ Ahmadou jigal nag defal mag ñuy wax nag njàngum sëriñ Ahmadou Mbacke Tundoodi jikko nag ju sëriñ Ahmadou Mbacke Tundoodi yore woon ak nag ñàkk gu ñu ñàkk nag doomu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke googu méttit nag gum defoon ci xolu murid yi rawatina nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci ginnaaw sëriñ Ahmadou Mbacke Tundoodi ñu teewlu ko Ahma mile du dañ di jooy Ahma mu mag mi ñépp jooy saa xol du dañ ci di ko jooy li feeg may génn xeddina sotub sayxil mustafa bi rakki seex taawub tafa ku dib julit tey ñàkk na bu ma sañoon wala ma doon kun fa yakoon billahi kon sëriñ bu baax bi fi ne woon xam ngeen ne tey dellu si na waaye borom bii di qadir ala kulli shay'in qadir huwa samiu wal basir moo ko jële ci adduna ka bind dee tej ca dund moo yóbbu kii di ahmadu huwa rahimu samadu moo ko yóbbu tey ajjana man ahma mii tey jaaxle naa ahma mu mag ma ñibbi dem na këram ci aljana ma des file ci adduna saa turandoo weesal na ma sunu borom dolli na ma suñu borom bi dolli ma am xel mu dalli metti na abki alayhi ahmada moo tax ma jël tey samada ngir fàttali waa januda defal lu ne ci adduna ay jooy bu doon fajuw naqar onde ma jooy ba xara xar ngir waaja daan fekk wépp lor mu del si waat ci adduna fu may giseeti ahmadu ma neexal neexaloon samag dund lu deseti samag dund su ma yaboo ba xaddina ku mus la jommi jommi na ku mus la jaaxle jaaxle na kii haddinaam tey tukki na saa turandoo moroom ñi fonk lool aw turandoom ba jël ko far def ko ne doom ku dégg lii ne dëggu na tey guddi gi jëm altene fanaani naan way mu ne ngir yëg xibaar ba ñu ma ne ahmadu mbake laqu na fàttalikul bisub demam ci say tasin la ahmadem weeru diggi li ya ca am ñaar fukk ak benn fana bisub keroog kuy turandoo jooy na keroog ngir ahmadu ñu bokk naa sun turandoo wétal nga nu ci haddina sindoo di ñoom ñépp a gëlëm kenn xamatul lan mooy mbiram daarul xulóos fa mbir am maymuna bisub keroog ñëpp ñëwoon daaru salaam kenn desutoon daaru nahim ku fa newoon ñëw na tanaali yéemi na bisub keroog mbégte amul mboolem ci réew mi Sénégal ku ne di ñëw ngir di nu jaal te naa demam gi bette na la dale Jurbel ba Mbàkke képp ku dip Mbàkke Mbàkke ak képp kuy wuyoo Mbàkke ñi ñëpp a teew lii màgg na bisub keroog ñëpp ñëwoon di seere na ku baax la woon ñi lee nga a asang la woon mun daa sagoo ci xëddina bisub keroog moo rëy te tiis jant bi jooy ba far ne niis ku ne di jooy saa xol bi fees ma bëgg jooy te jooy tëna boroom bi moom tagguwuma ndekoon ma ne ko yóbbu ma te bàyyi fi sëriñ ahma mi xam njariñ ci àddina bu buur bi ne woon jëm leen a xeex malaaka mi tax dundu jeex bu kenn ma ne ma bàyyi cheikh ahmadu mbàkke àddina juñ naa ne kon dinañu xeex buñ ko jisee ba doole jeex ñuy doog a xeexi xol bu jeex mbir ahmad des ci àddina muñ leena muñ te noppi leen seen turandoo mastawu leen ak taalubeem yi mu newoon maag yéene njiiba aljana xam leen ne nag dëkku fi woon dafay ñëwoon gane si woon adduna mi day dellu kon fom mu jóge woon di aljana te yàlla mi da ko noppal jële ko ngir ki koy sonal yóbbu ko kër ga koy bégal kër gi béglee di aljana adduna yow matu giñ naa ne kon axmaay ah sawaay xam naa ne yow doo dëkkuwaay waayam ja daal mooy aljana firdawsi ubbi nay buntam bay teeru kii di xaritam xarit ba mooy ahmadu moom waaye du moom aalim la woon xaafid la woon aabid la woon français it lu mu xam la woon ngir moo di xam luy hëddina xam-xam ba doy na jëpp waar mu dem ba réew mii di ganaar jàng ba raw fa bépp naar dellu waat li màgg na jaar na ci góor goog doy na waar ñu di ko wax sëriñ mataar moom binta loo mu xam makaar jàng bam naa ko mokk na jaar na ca baay ba seex basiir ma ñëpp xam muy nadir jàng ba defar ab nadir di waare naa nii la duna axama jigéen moo tee nga yem bëgg a xam sunu waa xam ko jafe na Cheikh Moustapha ku dellu jël yar ko ba noppi jàpp sol ci moom lu rëy lu kenn xamul moo tax mu mat ci jafe na am na ci lool duñ ko fesal de kon ma wax lool raw na xel ba ñëpp naa yow xalamal wax ji nga wax màgg na ma lim fi len di ay jikkoom nga xam ne kii bay naw sasam ba sas waje mu am ngërëm buur yàlla fay ko aljana tabeem nga mooy la mata wax ñëpp ko xam ci man a jox ku ñëw fi moom loolaaj mu jox ngay mujj naa li ëpp na faj xaajo a ne la waaw inchaa rabbi faju na moo noppi woon te gore woon te maandu woon te doylu woon mu laaye biir te lewetoon ba mel ne xar moom miine na musula bañ ku dib mindéef musula mooy borom mindéef roo ci sunas ngeen ngi mindéef wàccul ca yoon wa yegg na ba xam ne lii dafay lu war du am naqar ba tax mu mer du leb julli ngir ñàkk a ngir jaamu yàlla màgg na moo sopp buur ba sun boroom bu bëggutoon ci addunaam lu muy di jaamu sun boroom moo doon soxlaam ci adduna ahma jigal moo tee loo mënta xam loo xam ni si xam ko te na toroxlu naa ci sun boroom te ñaan ko ndax wax na ne moom ku ñaan mu may la ji moom alaxira ci haddina ñaan naa la yow sunu boroom ahmadu mii du sunu moom yóbbu ko kër gi gën fi moom te kër ya gën ci aljana wan ko yonen ba Mustafa ngën gi mindeef mu nekk fa ak jëwri nu tey Mustafa te gis la yow nga naa mën a amina amina amin ci barke ahmadu lamin ginnaaw marché boobu nag ahmadu jigal defal turandoom sëriñ ahmadu mbàkke tundóo bindkat yi itam nag bind nañ ci ginnaaw sëriñ ahmadou mbàkke tundoodi ñu man cee ku ñuy wax soxna géey sëriñ cheikh fall téere sëriñ ahmadou jigal ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu bind nag ci doomu cheikh mamadou moustapha mbàkke bi sëriñ ahmadou mbàkke tundoodi nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci liñ tudde ak màggal magam ji mu bokkal soxna xarimaan jóob di sëriñ alioune mbàkke mi toogoon toogaayu cheikh mamadou moustapha mbàkke moo jàppoon nag bisum ñaar fukki fan ak benn nag ciw diggiw tëbaski ku ciy fàttaliku rakkam ja nag sëriñ ahmadou mbàkke tundoodi ginnaaw bu mu ko màggalee benn yoon nag ma ca topp ñëw la woolu woon doomam jii nag mu tuddee woon sëriñ ahmadou mbàkke tundoodi di sëriñ ahmadou mbàkke moom sëriñ Alioune mbàkke di xamal nag ñi yaakaaroon sëriñ ahmadou mbàkke tundoodi di leen wax ne moom nag amatul genn jot gi waaye nag bàyyee na leen nag sëriñ ahmadou mbàkke mii mu nekk nag seen jëwriñ nag ci kër gi sëriñ ahmadou mbàkke moomu nag moo toog toogaayu sëriñ ahmadou mbàkke tundoodi ci li ko dale nag ci atum 1997 ba nëgëni màggal googu itam nag ginnaaw bu mu ko màggalee ba noppi saa bu del si ci at mi nag muy ñaar fukki fan ak benn nag ciw diggiw tëbaski mbooleem nag ci yaakaar sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóori danañ ci dajee nag ci buntu kër sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóori nag ci Touba Daarul Xuddoos ngir fàttaliku nag doomu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke boobu màggal gi itam nag màggalug bëccëg la am na beneen bis nag bu ñuy fàttaliku sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóori waaye daayira yi yaakaar sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóori ñoom ñoo jàpp nag bis bi mu génnoon àdduna nag ci weeru tubaab muy fanweeri fan ak benn ci mois de mars saa bu dikkee na mbooleem daayira yi nag danañ dajale nag seen wërsëg yëbbal ko nag ki toog toogaayu sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóori di sëriñ Ahmadou Ahmadou Mbacke moom sëriñ Alioune Mbacke ñaari bis yi nag la ñuy fàttaliku sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóodi ñi ñaan ca doomu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ba di sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóodi yàlla nañ ko suñ borom fayal te yokk ay leeram nag te taas ñu ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey waajuram Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke amin Moustapha Mbacke amin